koy eh, tàmbale Moustapha bu nekkee baax na rek ñu tàmbali ci à la une des journaux dañu koy tàmbaleek yéenekaay bi nga xam ne moo di l'informateur l'informateur moom la mu xatee ci xatam gu njëkk moo di euh, ministre bi nga xam ne moo di ministre tourisme di Mame Mbaye Niang Mame Mbaye Niang nag jamono ji mu mel ni ne àndul ak Amadou Ba ci élection yi nga xam ne foofu la ñu jëm naam nag yëkkati na si ay kàddu moom moomee lam ci wax moo di daal àndul ak euh, euh, maanaam ki nga xam ne moo di Amadou Ba yéenekaay bi leneen li nga xam ne moom la ci àndi daal jàppal ne moo di si si euh, élection présidentielle bi la ko tuddee lam ci wax nag moo di maanaam agent judiciaire de moom moo ngi def le tout ngir Ousmane Sonko bañ a nga xam ne moo ci élection yooyu waaye nag jamono gi la nga moom lañ ci wax moo di juróomi nit ñi nga xam ne ñoo nekk fees ca conseil constitutionnel ñoom ñoo ñee daal ñoom ñoo war a lijjanti mbirum Ousmane Sonko yéenekaay bi naka leneen li nga xam ne moom ci wax moo di Ousmane Sonko daal bu amul essence moom moomee si forclusion la jëm ñu jëlaat wax ca la ca gën a fës dañu jël yéenekaay bi nga xam ne moo di Le Soleil Le Soleil la mu xëtee sa xatam ju njëkk daal moo di jamono gi mën nañu wax ne candidat yi nga xam ne ñoom ñoo ñeen ñoo nekk candidature si élection yi ñu jëm toll nañ si 79 yéenekaay bi nag leneen li nga xam ne moom la ca andi jamono gi daal jàppale ne Sénéral génnee na la nga xam ne pré campagne ba campagne ba fan lay tàmbale ne fan lay jeexee nee na diggante la cinq janvier ba le 4 février yéen kaay bi nag wala nag général lam ci andi moo di moo ngi artu média yi nga xam ne jamono gi daal si diggante pré campagne googee ñu bañ a defal publicité benn candidat ba tey yéen bi nga xam ne moo di soleil lam ci andi daal moo di la agence judiciaire de l' moom moomee déposé na li nga xam ne moo di pouvoir ba xam ne mooy ca cour suprême ñu jëlaat beneen yéen kaay wax ca la ca gën a fës liberation libération la mu xëtee si xatam gu njëkk mu mel ni ne Ndella Madior Diouf jamono gi moo ngi ci guddi gu ba setagul euh, Ndella Madior Diouf jamono gii daal euh, moo ngi ci guddi goo euh, la waral nak du leen lu dul ne moo di kër yërmande popanyeram. di pouponnière am boobee nga xam ne daal ginnaaw gi nga xam ne am na ca benn xale boo ne génn na yëkk ca ci ay ne anam gi nga ne gogé. Non, lay jamono gii Ndella major. lañ koy toppee du leen ne homicide involontaire maltraitance d'enfant mis en danger de vie d'autrui et justice illégale profession de médecin ouverture et exploitation d'une pépinière euh, sans autorisation administrative euh, traite de personnes jàppale ne daal la major li nga xamné ne chargé moom lañ teg ci kawam ba bari na ba tey kay bi nga xamné modi libération mom ñak lam ci andi modi euh, ki nga xamné dal modi assistant wu Ndella major di Cheikh Tidiane Dièye mom nak lam ci wax modi féké na ne ñetti accouchement yoo xam ne daal major mom mom mee moom moomee nga xamné ne ci carrière kër yërmande kay bi nak yemu ci lam ci andi modi di Ndella Madior xale nga xamné da leen doon ay célébrité ku melni bébé Youssou Ndour bébé bébé Akon bébé Zuleka Ndella Madior Diouf bébé Mouhamed Samb Ndiobène Ka bébé Merem bébé Bisou Ngoné bébé Juma euh, Juma Dieng ñooñu ñëpp jàpp ne daal dañoo ñàkk seen bakkan si ay conditions yoo xam ne euh, kenn mënu ko wax waaye nag bu ñu xoolee dëgg si ki nga xam ne moo di euh, moo di bébé Akon ginnaaw gi nga xam ne ñàkk na ba bakkanam dañ ko def si benn glacière def si li nga xam ne moo di glace ba tey nag yéen bi leneen lam ci andi daal moo di bébé Madické euh, euh, bébé Madické Niang ak ki nga xam ne moo di bébé Mbaye Dièye Faye ki nga xam ne moo di Reine Saba ñetti xale yooyu nga xam ne Ndella Madior da leen tuddee woon ay autorité jàppal ne ba tey kenn xamul fan la ca nekk ba tey yéen kay bi leneen la nga xam ne daal moom la ci andi moo di El Hadj Sène kooku nga xam ne animateur woon si rajo bi nga xam ne Ndella Madior it moo ko moom ca Safir FM moom moom daal dëggal na ay kàddu ne jàpp daal ñoom ñoo suul nañ ñaari xale fee nga xam ne daal moo ca cimetière bu Yoff jàpp ne daal moom ak ki nga xam ne moo di complice moo di liggéey fee nga xam ne moo ci yor yéene kaay bi nag leneen moo di eh, xale bi nga xam ne daal moomee moo def li nga xam ne moo di révélation googee moom nag lam ci wax moo di dégg na fee nga xam ne daal moo ci kër eh, maanaam kër yërmande am na ca xale goo xam ne daal dañ koo jaay si koppar boo xam ne toll na si 8 millions yéene bi nag lam ci wax moo di Ndella Madior jàppal daal xale yi lekk gañ leen doon jox jàppal ay biberon lañ doon jël boole ko ndoxum robinet boole seeg li nga xam ne moo di tuuti xorom jox ko li nga xam ne moo di xale loolu daal yéenekaay bi andi ñu jël beneen yéenekaay wax ca la ca gën a fës le quotidien la ñu jël le quotidien moo di Ousmane Sonko euh, ginnaaw gi nga xam ne daal dañ ko war a réinscrire si liste électorale jàppal nag l'agence judiciaire de l'État moom nag bañul moom moomee nag déposé na li nga xam ne moo ca pouvoir ba moom moom fa jàllee kenn mënatu koo topp yéenekaay bi nag tey nee na agence judiciaire de l'état moom moo ngi fa mu nekkoon ba tey def la tuuba Ousmane Sonko bañ a doon candidat ñu jël beneen yéenekaay wax ca la ca gën a fës enquête enquête moom la mu xëtee si xëtam gu njëkk mën nañu wax ne daal clôture dépôt candidat yooyu am na daal jàppal ne yéenekaay bi lam ci andi moo di nag mbirum dëgg ja tàmbali na moom nag lam ci wax moo di lu toll si 261 candidats yi nga xam ne ñoom ñëpp jël ji woon nañu parrainage daal xoolee lu toll daal si 70 personnes ñoom ñooñee rek ñoo ca déposé rawatina fi nga xamné mo ci caisse de dépôt et de consignation ci copar ba mën nañ xayma ñu fa joxé gum xaalis mat na si 2 euh, milliards ñu jël benn yéenekaay wax ca la ca gën a fës Walf Quotidien journalu Sidi Lamine Niass bi jël moom nag la mu xëtee si xëtam bu njëkk euh, Thierno Alassane Sall ñu gën koo xam si taas daal moom mu la seq waxtaan euh, Thierno Alassane Sall moom nag la mu ci wax moo di askan wi ñu bëri daal jàpp nañu élection yi di ñëw mënuñu koo sàcc waaye jàpp ne lu nekk mën na see xew Thierno Alassane Sall nag leneen li nga xam ne moom la ci andi moo di daal jàppal ne jamonoy parrainage bi bëri na koppar goo xam ne daal séddale nañ ko si anam goo xam ne jaarul yoon ñu jëlal benn yéenekaay wax ca la ca gën a fës les échos la ñuy ñëw les échos la mu xëtee sa xatam gu njëkk moo di euh, ki nga xam ne moo di El Hadji Ibrahima Mbaw moom moom mi nga xam ne dafa bokk si membre lakos ñi nga xam ne ñoo ñee ñuy soutenir maanaam ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko kookee nag fi ñu toll ni nag dafa radicalisé wu bu ñu sukkandikoo si kàddoom la mu ci daal moo di amul benn loo xam ne mën na téye Ousmane Sonko bañ a bokk si li nga xam ne moo di élection yi nga xam ne moom la ñu jëm yéen bi nag leneen li nga xam ne moom la addi moo di Ousmane dina bokkam du bokk daal jàpp ne magistrat yi kenn ku nekk joxe na si xalaat atam bu ñu xoolee nag dëgg-dëgg si wàllum yoon naam bu nekkee ne ñii jàpp dañu Ousmane dafa war a bokk ñeneen ñi jàpp nañ ne si wàllum yoon bu ñu xoolee dëgg-dëgg Ousmane Sonko moom mais warul mën a bokk ci gën yi nga xam ne moom la jëm ca 2024 daal ginnaaw gi nga xam ne ñu bëri daal déposé nañ seen candidat fee nga xam ne daal mooy sa conseil constitutionnel jàpp nag fi ñu toll ni daal sept sages yi ñoom ñoo daal ñoom ñooy buum ñoom ñooy bum bi ñoom ñooy wax kan mooy bokk ak kan moo dul bokk ñu jëlaat beneen yéenekaay wax ca wax ca la ci gën a fës dañu ñëw ci la turbine journalu Bougane Gueye Dany bi moom nag kamu dalal moo di Mame Mbaye Niang Mame Mbaye Niang moom moomee ñëw na si candidature ñaar ñi nga xam ne daal mën nañ jàppe ñoom ñoo ñee ci ku jéggi bokk moo di Karim Meïssa Wade ki nga xam ne moo di Khalifa Ababacar Sall bu ñu sukkandiko si Mame Mbaye Niang ñoom nag bu ñu amul lay sens dëgg-dëgg mën nañ leen dàq si élection présidentielle bi la mën nañ wax si wàllum dialogue ba naam ponk yu bëri waroon nañ ko waxtaani waaye nag si wàllum yoon am na koppar yoo xam ne daal war nañ ko mën a déposé loolu tax nag nag bi ñëw si ne jamono gi daal ñoom ñaar ñooñee bu ñu amulee a bokk si élection nga xam ne moo di la turbine moom nag dafa samp laaj te lam ca laajte lu dul ne moo di si réew mi di Sénégal annoncé woon nañ ci lu toll ca ñoom rek la ñu gis daal ñoom ñooñee ñu déposé li nga xam ne mooy seen dossier fee sa conseil constitutionnel ñu jëlaat beneen yéen kaay wax ca la ca gën a fës yor yor moom la ñu jël moom moom moom ne lam moo di si candidature Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye bi nga xam ne booba tey ñu ngi si samp laajte ndax dinañ bokk wala duñu bokk wala daal wàllum yoon am na leen loo xam ne daal mën nañ leen daane la bu ñu sukkandiku si yéenekaay bi nga xam ne moo di yor yor moom nag lam wax moo di daal fi ñu toll nii daal ñenn ñoo si mën a yëy ñoo ci mën a yàbbi moo di euh, juróom euh, ñaari euh, juróom ñaari sages nga xam ne daal ñoo nekk fee ca la mu laaj mooy lan moo tax booba tey mu nekk fee nga xam ne mooy ca euh, prison ba ñu jëlaat benn yéenekaay wax ca la ca gën a fës dañu jël yéenekaay bi nga xam ne moo di Dakar Times moom la mu xëtee si xëtam gu njëkk daal jàppal ne moo di Karim Meïssa Wade naam nag yéen kay bi lam ci wax moo di dëgg-dëgg mën wax ne ni euh, PDS euh, bu nekkoon nit la ñu ne dafa feebar ndaxte jamono gi daal mën nañu wax daal seen congrès bi nga xam ne jigéen ñi moom lañ doon def loolee mu jëwul antu beneen bi mooy Karim Meïssa Wade mi nga xam ne moom lañ bëggoon investir mu nekk euh, secrétaire u parti bi daal jàppal ne loolee mën mu jëwul ànd ñu bëri daal ñooñu ngi joxañ baaraamu tuuma ne Karim Meïssa Wade daal moom moomee bëggul képp képp koo xam koy critiqué si parti bi nga xam ne di PDS loolu tax nag yéen kay bi ne ndax Karim Meïssa Wade bu wéyee nii dina mën dem si élection présidentielle yi nga xam ne fa la ñu jëm jëlaat beneen yéenikaay wax ca la ci gën a fës yéenikaay bi nga xam ne moo di bees bi bees bi moom la mu xëtee euh, yi si jeudi gi yéenikaay bi moo di a daal ay mbër yu ñu jëm ñoom daal ñenn ñi mën nañ am ay jafe-jafe ci ay parrainage yéen bi nga xam ne moo a dimbali ne moo di ku nekk am na député boo xam na la parrainel jëlaat beneen yéen kaay wax ca la ca a fës dañ koy tàmbali dañ koy jeexale yéen bi nga xam ne moo di stade stade la mu xotee si xëtam bu njëkk Gana Gueye zoru Sénégal bi nga xam ne moo nekk fee ci Everton ginnaaw gi nga xam ne boobu ak tey dafa am jafe-jafe si wàllum wér gu yaram nag yéen kaay bi tey naka lam ca laaj moo di ndax Gana Gueye moom mooy dina dem si li moo di coupe d'Afrique Boulaye Dia moom mooy moom moom moom la ca am ba tey ñu des si stade Lamine Camara doon jour boo xam ne si moo ca gën a xarañ ginnaaw gi nga xam ne ñoo ngi naan dañuy dem coupe d'Afrique ki nga xam ne moo di Sadio Mané Sadio bi nga xam ne daal démb moo ko doon dox ak li nga xam ne moo di équipe ba Sadio dafa doublé yéen kay bi nag lam ci andi daal moo di fi ñu toll ni daal mën nañu wax ne Sadio Mané pare na pour ca Coupe d'Afrique loolu moo gënoon fas ci li nga xam ne moo ñëw ci à une des journaux ginnaaw gi nga xam ne